alaikum, beaucoup internet IGFM.SN, point sn ngeen delluwaat nga rubrique parlons droit fas yéene ci jàkkaarloo ak Daouda Mine tey nag ñuy fas yéene waxtaane loo dañ koy faral di dégg yaakaar Daouda daal ci àndil ay mu nekk retour de parquet Daouda su ma retour de parquet lan nga ma ci mën a wax. Kia soo retour de parquet dama lay wax ni dafa nekk lu nga xamante lu ñu am habitude di doxal la ci justice donc li comme li tubaab di wax usage la mais nekkul lu nga xamante loi tey jii boo jëlee par exemple code de procédure pénale amul fenn fu nga xamante ne di nga fa fekk le terme retour de parquet amul mais dafa nekk lu nga xam ne dañu am habitude di ko doxale ba nga xamante ne dem na ba bokk ci justice li ñuy woowee retour de parquet nag li ko waral dafa am ñaari situation yu yu code de procédure pénale tëral muy nit ki bu ñu ko arrêté garder ko à vue 48 heures bu amee bu jotee dañ ko war a déférer au parquet donc dañ ko war a jébbal procureur de la république donc ñu koy déférer dañ koy jël ñu indi ko ci cave ba muy cave fi nga xamante mooy cave léegi nag bu fekkee ne dossier bu nga xamante ne procureur da koo bëgg a jébbal juge d'instruction il faut que dafa am benn kayit bu nga xamante ne procureur da koy bind mu tudd réquisitoire introductif pour jébbal ko euh, benn juge d'instruction du ñëw rek ne ko instruire ma lii da koy jóbbal benn kayit ne ko am na ay nit ñu nga xamante ña nga ca kaaw ba damaa bëgg nga ubbi information judiciaire contre ñoom léegi nag su fekkee ne toog na ba ngoon gi jotul bind kayit boobu nit kooku garde à vue jeex na comprendre nga ñu defeere ko au parquet ba pare mënuñu ko yóbbu kaso parce que kenn placé ko sous mandat de dépôt mënuñu ko delloowaat également police wala gendarmerie bi nga xamante ne moom moo ko jàppoon parce que garde à vue bi jeex na léegi en ce moment là dañ koy yóbbu commissariat central dénkaane ko foofu administration pénitentiaire ñoo koy yóbbu commissariat central dénkaane fa pour que mu fanaan fa bu ñu xëyee ñu jëlaat ko indiwaat ko ci cave bi situation boobu nag la ñu tuddee li ñuy retour de parquet mais nekk dafa nekk lu nga xam usage la mais nekkul lu nga xamanteni code de procédure pénale da koo prévoir. alors euh, retour de parquet est-ce un bon signe ci prévenu moi moom nek un bon signe ci prévenu parce qu'il est arrivé que mu am retour de parquet fekk dañuy négocier dossier bi parce que dafa am lu ñuy woowee médiation pénale médiation pénale moy bu fekkee ni ki nga xamante dañ ko tuumal mu nekk wala mu nekk abus de confiance nit ki par exemple jël na alalu jàmbur famille bi wala ay avocats yi d' accord ci que ne dañuy fay loolu procureur d'accord accord ci ñu ne dañuy def médiation le temps que ñu regrouper xaalis boobu pour jox ki nga xamante moom mooy victime bi loolu nit ki mën na am retour de parquet nga xamante kenn yóbboogu ko kaso bu ñu réglé problème bi procureur bàyyi ko bu ñu réglé problème bi mu doog ko place mandat dépôt donc mën na nekk bon signe am na yu mais yu ci bëri ñuy gis du question que ni dafay nek bon signe c'est parce que tout simplement procureur pareegul ci li nga xamante mom moy liguey bi mu war def moy préparer réquisitoire introductif bi nga xamante mom lay jëbal euh, juge d'instruction bi wala mu préparer document bi war ko jox juge d'instruction bi fekk juge d'instruction instant boobu nek fi mi ngi nekk yeneen yitte loolu mooy indi lu ci bari li ñuy wawé retour de parquet la plupart du temps dossier yi nga gis mo am retour de parquet yépp dafay nek dossier yu nga xamante ne day dem instruction jërëjëf Daouda chers internautes li moo nekkoon seen rubrique parlons droit ñu leen di jox di daje très prochainement di leen ñaan d'ici là ngeen topp li yoon wax